lakk-lakk bu métti la ñu nemmeeku ci àjjuma ci ngoon bi juróom benn waxtu ci jot ca Grand Diourbel nekk ab ci quartier féete ca sud-ouest bu commune bu Njaareem lakk-lakk bi nag mi ngi am ci genn kër boo xam ne ñeenti néeg moo fa ne ak benn véranda ñu daal leen di alerte bi juróom benn waxtu ci ngoon di jot toftal fukki simili ak juróom-ñaar ñoom éléments yu brigade bu 22e compagnie de secours et d'incendie de Diourbel ci saase bi juróomi simili weesoo la ñu daal di teew ci boobule barab ngir. daal di maîtriser tàkk-tàkk bi. tey dañuy alerté woon à 18h17 euh, pour benn feu de maison donc à Grand à Grand Diourbel donc euh, premier engin bi mu ngi yegg sur les lieux à 18h22 bi mu yeggee sur les lieux le chef de garde mooy chef bi njëkk yegg si bi mu gisee ampleur feu bi dafa demande sur le champ benn renfort. préfet bu département bu Diourbel moom itam daal di nay teew ci boobule bërëb ci jamono ji nga xam ne lakk-lakk ga ma ngay am ca kër googee ci ndigaluk gouverneur bu région bu jurbeel ñun ñu ñëw fii tey euh, ci ndigalu gouverneur région amoon vraiment donc lu metti lu dal kenn suñu dëkk Grand Diourbel mu doon lu tiis ndax bi ñu ñëwee xam nañ ni yàlla def na li gën ba amul kenn koo xam te ñàkk na ci bakkanam waaye gis nañ ni lii nga xamante ne moom mooy yàqu-yàqu yi jéggi na loolu nag mën nañu sant bu baax a baax a baax waaye également gërëm sapeur pompier ci ni ñu ñëwee nga xamante ni ak seen matériel fexe nañu ba lii nga xamante ne moom mooy lakk-lakk bi gaaw nañ ko fay waaye loolu terewul ak tey jii ni mu tàngee ak phénomène yeneen yi ci am ba tax na boo seetloo dégâts yi xaw na am solo lool lool ngir dimbali nag ñi nga xam ne ñoom ñooy taxawu nag famille bi nga xam ne la seen kër gi daal di tàkk ba jeex ab rapport dinañ ko amal ngir xaarandi ndimbalu état bu Sénégal.